alhamdulilahi xaqa xamdi walsalaatu walsalaamu ala abdihi wa rasulih muhammadin wa ala alihi wa asxaabih wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ddin amma baad mbokki jullit yi ñoo ngi sant suñu boroom tabaraka wa taala di julli ci ab yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xutba bi weesu waxtaanoon nañ ci mbirum jigéen ak yittewoo goo xam ne lislaam ittewoo na ko ko ba amal ay jigéen yoo xam ne ci seenu mbaax muy démbi lislaam histoire musta wone jigéen ñu leen gën walla sax ñu mel na ñoom kon mu mel ne xutbab tey tont lay doon ci laaj boo xam ne jaadu na ñu yëkkati ko mu di su fekkee ne melokaan yooyu ñu tudd mooy melokaanu jigéen ji baax fan la ñuy jaar ba sunu jigéen ñi sunu doom yu jigéen yi mënees leen yar bañ yor melokaan yu mel noonu tontu li moo di ne lislaam diine ju mat la diine ju màndu la joo xam ne du digle lu mëneesul lu muy digle di ko santaane di ca soññee dafa doon luñ man moo tax mu digle ko santaane ko soññee ca te moom yi buy diglee di santaane itam la muy soññi nit ka mu di ca dem loola njariñam kese la loolu moo tax fa ngay jaar ba amal jigéen ñu mel noonu jëf la joo xam ne yool bu yi nga ciy jële jëf la joo xam ne yool ba nga ciy jële yow mi koy def yool bu rëy la yool boobee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégal na la ci ñetti mbir yoo xam ne benn bu ci ne bu màgg la ba ca njëkk mooy danañ dox sa diggante ak sawara boo defee loolu ñu lay sant doo tàbbi sawara te kuy kër kër yi ku nekk fii bokk na ci li nga bëgg mooy mucc ci sawara ak tàbbi àjjana beneen bi mooy bis bu njàqare li ñëwee yowmal xiyaam kenn ku nekk jaaxle nit ñi dekkee ci seeni bàmmeel tàngoor wi metti yaag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéenay bokk fu ngeen taxaw kooku mbir mu rëy la ñetteel bi moo di boo ci taxawee niñ la ko sante am nga àjjana ju kawe sax ndax ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee da nga bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àjjana joo nekk defe naa ñetti mbir a ngoog yoo xam ne lu leen gën a màgg amut fegal la sawara ba doo ca tàbbi bisub njàqare ba ñëw nga bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foo taxaw ëllëg jot nga nekk ci àjjana nekk faak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñetti mbir yoo xam ne bégal nañ la ci su fekkee def nga jëf jooju jëf jooju mooy jan moo di sàmm doom ju jigéen sàmm xale yu jigéen ya bañ doonee ndaw teg leen ci siraatul mustaqim kon nga xool boobu yool bu rëy kuñ koy defal ci kaw nga ittewoo kii loolu moo lay leeralal lislaam fan la teg jigéen moom ñu yaakaaru lislaam dafa ñëw pour woyofal jigéen wala toroxal ko ku lay wax ne lii laa lay fay soo liggéeyalee kii pay ga tol noonu tol ne fegal la sawara tol ne boole laa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci genn ker boole laa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci genn kër kon ma ne littewoog lislaam jigéen moo tax mu def la yow nga doon ab sàmm doon ab surga buy liggéeyal jigéen ndax bëgg a am yool bu tol noonu kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu waxe yooyu ay xadis la benn bi mooy xadisu Aïcha mi ngi ci Buxaari ak Muslim daf ne koo xam ne yàlla nattoo na la dara ci doom yu jigéen koo xam ne yàlla nattoo na la dara ci doom yu jigéen nga rafetal jëm ci ñoom bàyyil sa xel bu baax ci kàddu nga rafetal jëme ci ñoom nee na ëllëg ñooy doon sa kiiraay liy dox sa diggante ak sawara ñooy doon kiiraay liy dox sa diggante ak sawara beneen xadiis bi mu ne képp koo xam ne am na ñetti doom yu jigéen muñal leen di leen wodd ñuy sol nga di leen jox ñuy dund ci sa kem kàttan ëllëg ñooy doon sa kiiraayul sawara kon loolu mooy pay gu njëkk gi gi nga xam ne boo taxawee ci li la war da nga ko am mooy mucc ci sawara te mucc ci sawara moom mbir mu réy a borom bi nee na fa man zuxziha an innaari wa udxila aljannata faqad faas képp koo xam ne soril nañ la sawara dugal la àjjana nee na yow texe nga texe nga da di nag boroom itte moom buy ñaan àjjana ji gën a kawe lay ñaan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dee leen ñaan firdaws mooy àjjana ji gën a kawe ci àjjana yi waaye nag bul fàtte mukk ne ki mucc ci sawara tàbbi àjjana moom lu mën a xew moom texe na ba noppi la ca des moom ay détails la rek yàlla na yàlla tabal àjjana ñaareelu pay gi moo di xadiisu jaabir nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku am ñetti doom yi jigéen di leen fat fegal leen yërëm leen kooku ajjana ñeel na ko yàlla warlul na ajjana ñeel ko ñetti mbir la fat ko ak fekk ko ak yërëm ko ñetti baat yooyu danañ ci dellusi ba xam luñ ci jublu ci xadisu abi said alxudri radiallahu taala anhu nee na kenn ci yéen day du am ñetti doom yu jigéen wala sax ñaar wala sax ñaari jigéen maanaam li ñuy wax sœur ragal yàlla ci seen mbir mooy def li la ci yàlla sant boole kook rafetal jëme ci ñoom lu dul yàlla fay la ajjana beneen bi mooy xadisu anas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ko am ñaari sœur ñaari mbokk yu jigéen walla ñaari doom yu jigéen rafetal jëme ci ñoom li feeg ma ngay ànd ak ñoom li feeg ña ngay nekk ak moom nee na maa ngi moom nii la ñuy nekkee àjjana maa ngi moom nii la ñuy nekkee àjjana kon yool bu mag a ngoog tuyaaba yu rëy a ngoog mooy tàbbi àjjana ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu ko yàlla defal waaye nag loolu dafa am ay tënk yoo xam ne faaw ñu xam ne doonut lu nit ki di tëb tëb rek am ko waaye sharia ci boppam mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi santaane loolu jàngle na nuñ koy defee boo xoolee rek ci xadis bu njëkk bi ni mu waxe baat bi day wane ne liggéey bu diis a ngi foofu ndax manib tuliya la wax képp koo xam ne nattoo nañ ko lenn ci doom yi jigéen kon xam nañ ne ab nattu la moo tax al qurtubi day wax ci tafsiram mu ne ab nattu la ko tuddee ndax nee na doom ci jigéen léeg-léeg day indil baayam gàcce xam nga ne doom ci jigéen juñ yarul ba màgg def ay njaaxum indi ci kër gi kooku gàcce gu rëy rëy rëy li ci baayam nee moo tax mu ne ab nattu la yi nga xam ne nag yu mënta ñàkk la ngir mbir moomu mën a am lépp mi ngi tënku ci genn kàddu muy fa ahsana ilayhinna rafetal jëme ci ñoom rafetal jëme ci doom nag buñ ko waxee mooy li dëppook sharia loolu it yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxu ko bàyyi noonu waaye daf ko wax leeral ko daf ne yuwihinna dana leen fat wa yakfihinna dana leen fegal wa yarxamuhunna dana leen yërëm ñetti baat yu am solo la alxaafis ibnu xajar rahimahullah day wax ne ñetti baat yooyu ñooy firi lim wax ne rafetal jëme ci ñoom soo ko defee rafetal nga jëme ci ñoom soo rafetalee jëme ci ñoom yayoo nga ñetti digg yooyu nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dig na la ko ba ca njëkk kon mooy fat ko yu wii na fat doom ju jigéen nan lañ koy fate ñetti mbir la ñuy fate doom ju jigéen ba ca njëkk mooy iwaauha ila ummin saalihatin taqiyatin afifa takunu qudwatan laha fat ko ci biir fatukaay boo xam ne ndey la ndey ju baax ndey ju sell ndey ju ragal yàlla ndey ju doon ab yarkat loolu mooy fat gu jëkk gi xam nga ne ndey lu am solo la ci doom su fekkee ne baax na la ñuy séentu mooy doom ji war kon dana wara mën a yar doom ju baax waaye su safaan ba amee it safaan ba mooy am moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam kay wuti soxna daf ne fasbar bi daati diin fexeel yow ba kenn du la jëkk ci koo xam ne boroom diine la soo ko defee doo ko rëccu kon fat googu doon na loo xam ne lu mënta ñàkk la te it gàllankoor yi nga xam ne mooy dal nit ñi tey mu di doom ji ak yaayam daanaka dañuy dem ba ci biir kër gi joteetuñ dara ngir dund gi nit ñi dund ni mu tëdde tey nga xam ne jigéen ji bu xëyee lu gën a bari day génn këram dem liggéey balaa dikk guddi jot doomam ñeneen lay jaxasool ñoo koy xam ma nekkoon kon yarub yaay day daal di sori doom boo ko tànnoon ba indi ko mu baaxit te doom yi gisuñu ko la nga ci doon séentu taxul mu am kon mbir la moo xam ne aw dund dundiin mu aaje xoolaat wu aaje seetaat la ndax kat man nga tànn jigéen ju baax ba defe ne yaa ci ne condition yi dund nga ñëw génne ko kër ga far yarut doom ya lus man lu mooy indi indil ñeneen ñu leen di yar ñoo xam ne yàlla moo xam fu ñu yaroo ak yan jikko la ñuy def ci ñoom ak yan melokaan la ñuy def ci ñoom su ko defee doom ja naa bañ a jaar ci siraatul mustaqim ba nga doon wut kon fatu gi ci biir ndey ji lu mënta ñàkk la ñaareel bi mooy fatu nag ci biir kër gi kooku mooy firi fat gi faw jigéen ji tànkam dafa war a gàtt waxeesul ne jigéen bu mu génn ok dana génn waaye bu génnee day dox fulla mu jeex mu dellusi ci kër gi jigéen kër mooy nekkuwaayam lu dul nag lu mënta ñàkk nga xam ne dafa dem ba sës loolu moo koy war a génne këram su lu baax ñëwee lu mënta ñàkk loo xam ne da koy doxi moo xam ak jaamu yàlla la wala day aajo ju mënta ñàkk wala ak topp yàlla ma ni jóg julli ji comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ci jullik ñaari iid yi mu ne wala ci jullik ajjuma mu ne wa yachatna alxayra wa daawata almuslimin nee na même ñi nga xam ne dañuy ñëw ci jullikaayu iit nga xam ne du jàkka même ñi ci nekk ci régal sax nga xam ne dañoo gis seen baax may nañ leen ñu jëw toog ci bitti ginnaaw nekkuñu ci jàkka di déglu xutba imaam de ngir mën caa jariñu kon aw yiw dana tax jigéen ji génn waaye nag palaasam dëgg-dëgg mooy këram moo tax borom bi tabaraka wa ci alxuraan kër da koy moomali jigéen am na ñetti aaya yoo xam ne jigéen ñi la moomale kër yi te kenn ku ne xam na ne li gën a bari mooy kër yi góor a leen moom góor a leen moom ñoo yilifaale jigéen ñi ci seen biir waaye teewul borom bi tabaraka wa taala mi wax ne wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal xikma kon foofu seeni kër la leen wax yéen jigéen ñi ak it laa tuxrijuhunna min buyutihinna bu leen leen génne seeni kër beneen bi waqarna fi buyutikunna sax leen ci seen biiri kër kon foofu rek lañ gis borom bi tabaraka wa taala jël kër yi di ko moomale kenn ñetti yoon te fekk jigéen rek la kon loolu day wane ne kër gi mooy bérébu jigéen ci lu dul nag aajo daf ko génne mu génn dem doxi ko del si dikk toogaat fi nga xam ne mooy palaasam ñetteelu fat gi mooy fat ko ci kër gi nga xam ne kërug topp yàlla la kër gu ñuy jànge alxuraan kër gu ñuy tudde yàlla kër gu ñuy jullee kër gu ñuy jànge xam-xam kër gu ñuy dégloo aw yiw kër gu mel noonu kat a tax ñuy wax waaye kër goo xam ne ku fa fàttu it doo dolliku njub googa kër taxul ñuy wax mën naa am jigéen ñu dul génn sax seeni kër wala su ñuy génn tuuti lay doon waaye du tax ñu mën a jubbantiku walla ñu jub lu ko waral mooy kër gi ci boppam kërug seytaane la caaxaana fa ne po moo fa ne ay góor ak jigéen yuy jaxasoo te muuru amul seen diggante loola moo fa ne ay way yuy yëkkatikoo ki misik guddeeg bëccëg ñi di ko déglu loolaa fa ne kon googa kër fatu ca ñu ñuy wax waaye gi tax ñuy wax mooy kër goo xam ne sell na kër goo xam ne baax na kër goo xam ne téere bi yàlla ba ña ko fay jàng dafa jàng sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di fa déglu lépp loo xam ne aw yiw la kon loolu mooy fatu gi fatu ci ndey ju baax fatu ci biir kër te ñetteel ba kër googu doon kër goo xam ne këru jaamu yàlla la wa yakfihinna maanaam mu fegal leen feg googu mooy lan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko firil boppam ci xadiisu muslim fi mu waxe ni képp koo xam ne dundal na ñaari xale yu jigéen bañ jot gàpp mu bañ màgg waxaat ne wodd leen ci kem kàttanam jox leen ñuy lekk jox leen ñuy wodd jox leen ñuy dëkk kem kàttanam kon fegal na leen ñuy jóg di yalwaani wala ñuy jóg di ñaani walla ñuy jóg di wuti lañuy soxla ci seen wàllu dund fegal na leen ko ba duñ génn di doxi yitte joo xam ne dafa jëm ci luñ am ndax su ittey gone jëmee ci lu mu am loolu moo koy indil dem ba mën a xalaat ci mooy yàlla dem ba mën a xalaat ci jàdd siraatul mustaqim ndax kat su fekkee ne lorul na ci wut di xëy di wuti rek bunt bu mu fëgg mu jafe bu yàggee la mu mujjee mooy fëgg bunt mooy yàlla su ko defee loolu yàqule indi kon fegal ko lim aajo wala am solo la sharia nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam buy wax day wax waxin woo xam ne wu doy waar la te xóot moo di fekk la jëfandikoo fegal ko yim aajowoo loolu bokkul ak bewal ko am na ay baay yoo xam ne eh, yàlla nu yàlla boole gindi li ñuy defal seen doom yi jigéen mooy bewal leen mooy lépp lum xemmem rek nga indi lépp lum laaj rek nga jël jox ko loolu de lu neex ci moom la waaye yàq la ci moom lim koy jural ëllëg mooy sëy bu gàtt mooy la ci jiitu lam yaroo ci kër ga nga xam ne lim xam mooy lu mu laaj ñi jox ko bis bu séyee amaana ka ko yor mën na ko bañ a man wala bu ko mënee it programme mën naa bañ a tëdde noonu bis bu ko gàntalee problème yi tàmbalee juddu su ko defee la muy jur mooy la ma tàmmoon xam ko ca kër ga mooy lu ma laaj ñi jox ma ca loolu la juddu yar yaru ca ba màgg ca ba mata séyi dem na kër goo xam ne boobu programme nekku fa laaj na joxeesu ko mer dikk na coow dikk na mooy ndigalul borom kër dikk na xuloo dikk na la ciy tegu mooy tas tegu ci waliyaasu billaah kon li borom bi tabaraka wa santaane foofu mooy la ñam doon tagg dafa wax ne mu ñim tudd ci ay ibaadu ci suratul furqaan muy jaami yàlla yu sell ya bokk na ci seeni melokaan mu ne wa ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu suñ dee dépassé nee na duñ joxe ba mu ëpp waaye duñ korkoral it ba mu néew ba nit ñi duñ am luñ lekk duñ rekk wala duñ am luñ sol wa ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kaana bayna dalika qawaama day nekk rek ci digg bi day équilibré liñ aajowoo mu jox leen loolu mooy dëppoog li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na yakfihinna daf leen di fegal seen aajo jox leen ba liñ doon aajo woo nga xam ne doomu aadama mënta ñàkk loolu ñu jox leen ko ñu am ko kon noonu la ñuy fegale doom ji ci wàllu dund waaye doom kenn du ko yàq bu ëllëgee dunduk àdduna daal di metti ci kawam tënkum ñetteel ba mooy yërëm leen wa yarxamuhunna yërëm leen yërëm leen nag buñ ko waxee rek ñu bare bari li ñu daal di jàpp mooy laa biir ci ñoom di leen dimbali bañ leen a dóor bañ leen a wax lu leen naqari loolu lépp dëgg la dugg na ci biir loolu dugg na ci biir waaye yërmaande ja tax sharia di wax nag gën naa xóot loolu ngir mu mën a leer faaw ñu xam ne yërmaande jooju ñaari mbir la bi ci jëkk mooy yërëm leen ci fegal leen sawara yërëm leen ci fegal leen sawara kooku mooy yërmande ju mag ji moo tax borom bi tabaraka wa taala day wax ne yaa ayuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla qu anfusakum fegal leen seen bopp wa ahlikum ak seen njaboot naaran sawara fegal leen seen bopp ak seenu njaboot sawara kon kooku mooy yërmande ju mag ji kon ki yor doomam yërëm ko ba du ko dóor du ko xas du ko saaga ma ngay def lu baax waaye na xam ne loola mooy yërmaande ju ndaw ji yërmaande ju mag ja nag mooy di ko digal lu baax yar ko ca di ko tere lu bon yar ko ci bàyyi lu bon waaye kat yërëm ko ci wàllu àddunaam kese waaye doone ko kaay julli doone ko kaay woor doone ko muurul ma ne boobu bàyyi ab noon la gën a jege ci ci ab soppe ndax mu ngi koy defaral matière muy dund ak àddunaam waaye xalaatalu ko ci ëllëgam digganteem ak boroomam teyit laayewu ko biir dëgg-dëgg laaye biir kon faw waajur yi ñi delloo siwaat seen xel delloo siwaat seen bopp xam ne role bi ñu am ci seen diggante ak seen njaboot ëpp na rekk jox ko mu lekk jox ko mu naan jox ko mu dëkk waaye fexe ba fegal ko sawara kooku ci sas yiñ la sas ci la bokk kooku mooy yërmaande ju mag ji mooy yërmaande ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yërëm xeetam wépp moo tax dafay wax ci benn xadis mu ne sama digganteeg yéen mi ngi mel ne waa joo xam ne sawara day tàkk dafa taal sawara jóg taxaw lëppaa lëpp ya di naaw bëgg caa tàbbi mu taxaw di leen dàq ndax bañ ñu tàbbi ci sawara ya waaye nee na ñu di ko rëcc rekk di tàbbi ci biir nee na noonu laa mel ak yéen kon fegal xeet wi sawara moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg moo tax ku ko topp ku nekk da nga mucc ci loolu waaye nag ku ko mooy ba tàbbi ci yaa ca tàbbal sa bopp waaye loolu it mooy dox diggante nit ki ak njabootam mooy fegal leen sawara ci yi ko boroom bi tabaraka wa taala sase la bokk kooku mooy benn yërmande bi beneen bi ci des mooy yërëm xale bu jigéen bi ci doon gim doon jigéen ci boppam yëg-yëg bi mu yëg te jigéen di ko yëg loolu laaj na laaj na yërëm lu bari ci nit ñi sàmmoonte wuñ ak yërmaande seen doom yu jigéen ak yu góor sax ak seen yëg-yëg ndax yëg-yëgu doomu aadama ci ak ndaw dana toll foo xam ne lu koy yëngal lu ne mën na koo tàbbal ci mooy yàlla lu koy yëngal lu ne mën na koo tàbbal ci ak mooy yàlla léegi-léeg nga gis ku indi ci si biir kër ay jumtuwaay yoo xam ne la fa ne ci xeeti mbon ak xeeti caaxaan gone gu koy seetaan wala nga di ko déglu te toll ci sag ndaw mën naa yàq say jikko ci lu gaaw a gaaw a kon yërëm leen bokk na ci mooy bu leen xëccal lenn loo xam ne daf leen di yëngalal seeni bànneex te àggaguñ foofa ndax loolu da leen di yàq bokk na ci yërmaande jooju muy sàmmoonteeg seeni yëg-yëg fexe ba ku ci mata sëyi te gis ku ko bëgg te doon ku baax nga bañ koo gàllankoor kooku ci yërmaande yi la bokk léeg-léeg am ay waajur te lu bare bari la sax ci ndaw ñi tey ñoo xam ne nit ñu baax dañuy ñëw soxla seen seenub cër moo xam doom la moo xam jigéen ju ñilif ñu lank bañ ko koo may dox digganteem ak moom donte ñoom ñaar bëggante nañ sax donte ñoom ñaar mën nañoo ànd donte ñoom ñaar bokk nañ jikko bokk nañ diine seen lépp dëppoo na ñu taxaw ci diggante bi ne loolu du am boo leen laajee nuñ ko firee ba du mën a am yu ñàkk bopp ci wàllu lislaam la ñuy wax mooy benn waa ji la muy liggéeyee la muy liggéeye munu caa jële loo xam ne euh, kër ga ma yéene sama doom di fa nekk dama bëgg kër gu gën a woom googu dama bëgg jëkkër ju ko ëppale alal kon kooku alal kese ak wàllu àdduna moo tax waaye bu dee ci wàllu jikko bu fekkee ni jikko ji mat na loolu warta doon gàllankoor waaye nag it faw nit ki am loo xam ne mën na koo fegal fekk gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax loolu nag moom it faw ñu bàyyi ko xel waxuñu nit ku yor loxoy keseem liggéeyewut dara tayeel teg ca ba deful dara jékki-jékki ñëw ne nañ ma may soo soo ko defee itam nag nit ka du la jox waaye nag moom it bu mu xeeb li ngay liggéeyee ginnaaw am na jom mu ngi summiku di ñaq ci ñaq wu dagan ak lum néewle néewle kooku yeyoo na ku ko jàppale kon jàppale ko ci biir loolu te séentu ca barke borom bi tabaraka wa taala dana ci def barke ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñi ëpp barke ci jigéen ñi mooy ñee ci gën a yombale ak can ñi ëpple barke ci jigéen ñi mooy ñee ci gën a yombale ak can léeg-léeg bi gàllankoor googu du doon sax ci wàllu alal waaye léeg-léeg ci wàllu askan lay doon ci wàllu askan lay doon ñu ne kii ci askan sàngam la bokk te kee ci askan sàngam la bokk kon mënuñoo ànd donte ñoom ñaar ñëpp ay jullit lañ donte ñaar ñaar ñëpp ñu jub lañ ñu nekk ci mbaax lañ itam ñu ne rek kii askanam ak askanu kële bokkul daal di teg benn frontière seen diggante mu doon gàllankoor bu mag a mag ci biir suñ societé boo xam ne jullit yi war nañ cee delloo si seen xalaat ak seen xel soppi aw doxaliin aku tëralin ci anam googu te fàttaliku ne alquranul karim bis bu nekk ni di ko jàng borom bi tabaraka wa taala di wax ne inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen fa yàlla mooy ki ci gën ragal yàlla loolu na doon loo xam ne luñ bàyyi xel la ci diggante nit ñi ak seen njaboot bokk na ci yërëm leen mooy bañ leen a gàllankoor ci wàllu sëy ndax loolu la ca mën a juddoo ci ay musiba bari na lool te bis bu set ñu teg ci ñu teg ci suñu bët loolu kon mbokki jullit yi noo ngi leen di dellusi di leen dénk di dénk suñu bopp tabaraka wa taala rafetal jëme ci ndaw ñi rawatina doom yi jigéen yi seenug baax ak seenug njub ci la mbaax ak njubug askan wi nekk seenug dëng ak seenug jàdd yoon ci la dëng ak jàdd yoonu askan wi ci la nekk kon nañ jéem góor góorgóorlu luñ mën ci baaxal leen teg leen ci saraatul mustaqim ñi jub col yu bon yi ñuy gis ak yépp ñu fexe ba mu soppiku ba nit ñi delluwaat ci seen diine delluwaat sax lu bon bon boo xanaa ci seeni i aada ak seen cosaan ndax yii nuy gis léegi ay nit di ko sol di génn ci mbedd di dox jëlale naa nit ci diine yi waaye maam yi nga xam ne rek eh, ñoom ñoo dundoon aada jeeg cosaan yi ci réew mi ku leen ne woon seen sët yi danañ dem bay sol lu mel noonu loolu duñu ko gëm kon mbir la ak yàqute la goo xam ne faw ñu dellusiwaat gannaaw te loolu xeex ko ak dindi ko fi jàngal nit ñi lu ko fi dindi génne ay luwaay yu ko fi jële moo gën a far moo gën di faratu lu bare bari ci ay luwaay yoo xam ne mi ngi jóg jëm ci jigéen ñi ci tey jii yool boobu nag yool bu màgg la kon pay gu mag gu jóge ci suñu borom tabaraka wa taala ñëw ci ki nga xam ne moo ittewoo jigéen ñi ku koy xool da nga naan lu diis la waaye nag lu jàppandi la ci ku ko yàlla jàppandal ci moom yàlla na ko yàlla jàppandal ci nun ñëpp allahuma aiz al islaama wal muslimin wa adil ashirka wal mushrikin wal kufra wal wa makra al makirin wa sixra al saaxirin wa baghiya albaaxin wa tugaati almutamaridin wa junuudi iblisa ajmain wa salli allahuma wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa aqimi alsalaa